jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan sunu mbokk internet yi ci 28 pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak yéen seen découverte tabaski eh, gannaaw bi ñu defee ay kër yu bëri nag tey nag ñu ngi àndaat ak yéen ci beneen numéro ñëw fii ci daar Darou Manane ñëw seet si ki nga xam ne donc suñu xarit la eh, ñu yàgg ko gis mu yëngatu ci lu bëri ci loo xam ne maanaam mi ngi soxal mbiri jigéen eh, dinaa ko bàyyi mu présenté wu bu ko defee ñu jublu ci waxtaan bi soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal ci 28 man maa ngi tudd madame Mbacke Mariama Ndiaye eh, juddoo ngaay <laughs> yaroo Thiès sey si fii Touba di taalibe sëñ Touba nag taalibe sëñ Touba bu wér ndax taalibe borom Daaru Musti laa kon taalibe sëñ Touba laa eh, di jàngalekat de fonction mais depuis euh, maa ngi ci ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants bii Ndeye Sala Diop Dieng jiite loolu moo tax ma yor SEDAFO Mbàkke bi le centre départemental d'assistance et de formation pour la femme et la jeune fille mais tamit damay femme boo xam tamit damay yëngu ci développement euh, développement surtout loo xam ni développement autonomisation de la femme et de la jeune fille loolu moom nag a jëkk dama ko mës a bëgg bi ma nekkee xale ba may jàngal tamit loolu dama ko bëggoon xam naa loolu tax yàlla séddee ma séddaa fo Mbàkke bi alors diggante ñaari dëkk yi nga jógee Ngaay Thiès ñëw tuubaa euh, ci sa jaar-jaar euh, naka nga def bi lay jël si ba lay indi biir Touba noo ko dundee woon par rapport ak fonction bi nga nekkoon doon jàngale en tant que jàngalekat bu jigéen jóge ci benn ménage dem ci feneen boo xam ne maanaam dana fa dund peut-être lu mu dundul woon dund te bokk nga ci ñi nga xam ne moom ngay yëngatu mooy wàllu jigéen parce que jigéen ngay formé noo ko noo ñu ko mën a expliquer loolu. xam nga dafa am loo xam ni bu fekkee sa éducation de base dafa am loo xam ne boo fa jaaree lu bëri du la jaaxal macha allah euh, man je touche di bois sama papa dafa ñu yar fi mu ñuy war a yaree ñun tey bu jógee woon fi ñu nekk dem ba Fongolemi euh, waa Fongolemi nan ma baal. lañ fa mën a nekk te defe naa boo jógee cees ñëw Touba rek taw féex la euh, jaar naa dakaar nag ndax bi après sama bac Dakar def naa dakaar université def DC comptabilité soo ko dugg si jàngale bi mm-hmm. ménage bi moom daanaka moom moom a indi Touba daanaka mm-hmm. ndax sama premier poste sa saara la woon foofu la yàlla tuddee sama xamante sëñ bi ba ma ñaan affectation ñëw Touba di jàngale diggante Mbàkke ak Touba waaw. alors euh, ñu la def la ngay directrice SEDAF euh, bu Mbàkke. Mm-hmm. tabin boobu noonu euh, lu ko indi politique moo ko indi wala ci sa xarañte ci njàngale bi nga doon yëngu parce que gis nañ ne maanaam yow da ngay politique xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. waaw xam nga SEDAF poste bi poste fonctionnaire la il faut nekk nga nekk agent de l'État pour mën a nekk ci post bi te wax naa la léegi ni jàngalekat laa diplôme yi ma war am ci jàngale yëpp macha allah am naa ko ba fi mu nekk nii euh, plafonné naa au niveau de des avancements et tout ça donc CEDAF euh, certes naa politique mais nag administration la jotewul ak dara politique nag ndax CEDAF euh, mi ngi mel ni rek nga ni ki nekk gendarmerie ki nekk élevage chef de service ki nekk ki nekk agriculture c'est la même chose donc il faut nga am yenn diplôme yi il faut nga nekk euh, fonctionnaire pour mën a nekk ci poste SEDAF bi. waaw loolu la alors euh, poste SEDAF boobu noonu euh, mën na ne yow yaa ko ubbi. wala non non ubbiwuma ko. am na ku la fa jiitu. man maay troisième femme bi fa nekk. ok waaw. Ah. c' était en 2012 lañ ko indi woon fii. 2012. Mhm. bi ñu ko ubbee. Mhm. benn madame kan bu nekkoon Diourbel moo fi nekk mais yàggu fa. après la fa madame Fall madame Diouf nekk. Mhm. après bi mu retraité laa fa dem. waaw waaw waaw maa ngi fàttalu. madame mm. madame Diouf wax nga dëgg moo fa nekkoon. Ah. Euh, waaw de 2012 à 2016 waaw naa ko c'est vrai naa mm. faa ñëw ci fekk ko fa. Mm. mais centre boobu noonu euh, ni muy fonctionner. am na ñoo xam ne maanaam xamuñu ko exactement. dañu xamul ne maanaam centre la bi war a jàngale wala duñu lan moo tax miinuñu ko par rapport ak yeneen centre yi. parce que ah, ah, dañ fay jaar mais duñ fa gis maanaam centre ba ni mu mel am na lu bëri loo xam ni fonctionné wul. lan moo waral par exemple parce que boo gisee am na mën naa ko am na benn bâtiment bu nekk ci gannaaw di saal yooyu ak espace bu yaatu foofu dama fay gis daanaka genre euh, dama fay stocké li nga xam ne moom mooy ay chaise ak yooyu rek. kon gëj nga SEDAF. lan moo fa am lu waral. SEDAF kon gëj nga fa bâtiment bi ci gannaaw ay atelier la trois atelier la. Hmm. atelier yi euh, fa formation yi. muy formation femmes yi ak jeune fille xam nga SEDAF pour jigéen kese la. Mhm. Euh, am na SEDAF yoo xam ne sax defuñu formation comme jeune fille mais groupement de femmes la ñuy jëli seetlu leen former leen foofu mais xam nga formation wu jigéen benn diir la formation femmes yi maximum 10 jours lay am ñoom ñu pare alors que formation jeune fille yi initié dina am formation 3 ans am na formation 6 mois mhm. courte dure bi mhm. mais SEDAF <laughs> moom da nga fa gëj mais boo jógee fi sax bay boo dem visiter ji ko parce que réfectionné nañ ko totalement mm-hmm. réfectionné nañ ko totalement de passage maa ngi nuyu trois fpt le ministre Dame Diop parce que ñu dañoo bénéficier wu ci PFI bi PFI bi ñun bokkuñu ci ministère boobu ak mais suñu démarche fexe nañ ba bénéficier ci ci PFI bi ñu formé ñu ay jigéen ak ay jeunes filles mm-hmm. réfectionné waata ñu SEDAF bi équipé ñu ko encore am na ay machines yu fa nekk mm-hmm. euh, machine ay moulin machine ay machine à coudre ma nga fa ay salon de coiffure ñu ngi sédaaf ay boulange non yàggu fa nag man bi ma ñëwee ci la salon de coiffure yi ñëw am nañ fa deux salons de coiffure am nañ fa ñaari mini boulangerie ay filière mën ci filière yi yi mooy coupe couture bi xale yi jàngal ñëw am na restauration xale ñuy jàngal wàllu togg am na tamit coiffure pour le moment trois filières yooyu ñoo fa am mhm. mais tamit jigéen ñi ngi leen fay indi di leen defar transformation fruits et légumes ak transformation des produits locaux. ñu ngi leen ko fay defal ay GIE lañ fay indi. waaw ay GIE ay GPF ñu leen ko indil. ñan ñoo koy ñan ñoo en général ñan ñoo koy piloté wala ñan ñoo koy financé ñan ñooy jël en charge loolu noonu. ñun ñoo def ñoo def suñu démarche en tant que SEDAF coordonnatrice euh, yow yaa def see démarche dem seeti euh, ay bailleurs wala nga seet ay partenaires lu mel ni euh, ONF 3FPT ñu formel ñu ay jigéen ak ONFP d'ici d'ici d'ici cinq jours rek am na yeneen quatre-vingts femmes ñu war a formé waat. Euh, quatre équipes de vingt yu ñu war a former waat au niveau du SEDAF. Mhm. fan yii à partir du vingt six. Mhm. waaw kon formation yooyu day am dam dix jours ñu dem. ndax noonu la am na tamit formation def nañu fa formation yoo xam ni SEDAF ñoo ko financé seen bopp. parce que SEDAF tamit bu bu leen ni am na tuuti revenu yu muy am. Mhm. parce que yenn saa yi euh, euh, grand bâtiment bi ngay gis. am na ay chambre yu fa nekk am na ay salle euh, de de réunion yoo xam ni dañ koy def mm-hmm. euh, buñ ko amee location delluwaat ko ci jigéen ñi defaraat ci SEDAF bi fay ci euh, femme de charge ya fa nekk mm-hmm. parce que tamit loolu loolu noonu daal la. yëngu daal. ña fay yëngu di waaw maanaam état leen fay la fay génne la fay ruusee daal ci ngeen leen di. fay ñoo ngi sant tamit ñoo ngi sant tamit le maire de la commune de de de ndax bi ñu defee demande bi ma ñëwee def demande par manque de personnel am na ay ay agent yu ma indil di santaale tamit ASP yi le coordonnateur moom tamit envoyé na ma ñaari agent mm-hmm. en même temps tamit le conseil départemental tamit suñ faalu tamit maa koy sant di ko nuyu moom tamit indil na ma ñaari agent foofu voilà sant euh, ci biir laaj bi laaj naa la ne la poste bi bi la jox maanaam nomination la euh, boo xam ne wala boog comme ni nga ko waxee administration moom mooy doxee. dëgg la arrêté la arrêté ministériel mhm. parce que fonctionnaire noonu lay doxee. Mhm. mais bokk na ci la la fa indi tamit mooy ci politique bi nga xam ne da koy def ban xàmmee la wala boo politique bi fii la la dabe. ci euh, man yàgg naa politique avant ma dem SEDAF xam nga doon administration. xam nga post politique nomination la. Mhm. président mooy taxaw ni diw naa ko nommé poste ministériel wala dara. mais xam nga euh, administration ni muy fonctionner wax naa la ko léegi mhm. il faut nga am yenn niveau yi ñu ni post bi kat et puis poste tamit da nga naan poste bi ndaw si mi ngi dem retraite ñan ñoo ko bëgg ñu dem ku nekk def sa dossier ñu tànn xëy na dossier yi ñu xool parce que salaire bi ñu ko bëggoon bari nañ de compétition quoi ñu ko bëggoon bari nañ mhm. mais nag le le dernier mot revient au ministre uh-huh. après mhm. mu daal lay woo daal ne daal man daal euh, Mariama daal doy na ma ci xaar ma yóbbu ko waaw en tout cas euh, ministre saar Sarr moomu fi indi woon. ministre bi fi la ma fekk. Uh-huh. day sale fi la ma fekk. fii ci SEDAF bi la fekk waaw. Uh-huh. ngeen ñëw nag gën a jaxasoo mu ñëw fekk si la ngeen gën a jaxasoo maanaam projet yi day gën a yokk euh, maanaam euh, am na loo xam ne maanaam dana la ko gën a baaxee ci appui dëgbaleel ci centre bi gën a dox. xam nga ñun parce que mbiri jigéen la. mbiri jigéen la suñu rôle ñun. Uh-huh. en tant que en tant que SEDAF mooy nga encadrer jigéen ak fu mu mënti bokk. parti politique bu mënti bokk na il faut tamit loolu muy leer ak tamit euh, euh, jeune fille yi fu ñu mënti féetee ak race bu mu mënti bokk ak statut bu mu mënti am ñu suñu rôle mooy encadrer assister leen ci domaine yëpp domaine wér yaram <laughs> nit day feebar nga gis ko wala ñu wax la ko nga dem SEDAF loolu mooy rôlam dem seeti ko mu néew doole nga fexe ba ñu faj ko récemment rek ministre de la femme euh, am na video bu bu bu doon daw te dama jël exemple boobu jigéen ñi lakkoon ñun ñoo leen jël en charge ministre jël leen yóbbu leen Dakar faji leen loolu loolu mooy rôle SEDAF te au niveau départemental la tamit encadre leen tamit bu am ci projet yi projet ministre la femme gis ngeen bi mu fi ñëwee euh, euh, jigéen ñi euh, ñu am seen projet ñu fexe ba encadre leen jigéen ñi nga xam ne ñu nekk ay mbootaay am ñu groupement parce que tamit foo mu dugg ci projet foo am papier ñun du ñoo ñooy defal projet yi du ñu ñooy defal groupement yi mais dina leen orienté vers développement communautaire di nuyu au passage sama xarit euh, sama collègue euh, kii euh, Thiendella Fall ñu orienté leen foofu mu def leen ay ay GPF ay groupement pour ñu mën a am ci yenn projet yi. mais mais loolu tamit gis nañ ci ay privilèges bu ngeen bokkul parti lu ci ëpp bokk sa souvent parce que jigéen ñi ñoom ci dëkk bi lan dëkk dañuy dégg jigéen tam seen wax ah ñii kat ku leen jàppale wut du la jàppale loolu kat gis nañ ko fi tamit. loolu loolu non non non loolu sa xalaat la parce que sa daaf bi. ñu duñ ko politiquer man de personnellement duma ko politiquer te soo demoon tey jii am na am na benn benn benn whatsapp bu ñu ubbi tuddee ko les entrepreneurs les femmes entrepreneurs du SEDAF foofu boo fa duggee waa PDS yaa ngi ci waa réew mi yaa ngi ci ñëpp ñu ngi ci ay femmes yoo xam ne ñëw di fréquenter SEDAF defal seen réseau di liggéey ci SEDAF bi kon nag SEDAF euh, euh, ñun ñun du ñu distinguer parti politique du suñu du su non du su c' est pas normal du suñu rôle. Mm-hmm. duñ ko def su may politique rek dans politique en dehors de SEDAF damay nag moom. Mm-hmm. mais dama ko def en dehors de SEDAF. alors euh, ci la ñuy tàbbi politique boobu noonu nga wax. Mm-hmm. yow sa sa sa sa say action sa activité politique. Euh, boo wax waxi social nag social moom ñëpp koo wax mu ne la social laay tàmbale ba pare di def social intérêt <laughs> waaw loolu moom nga. say activité politique ci sa fan nga ko ko fan fan nga ko centré. ak lan moo tax nga ma njëkk fii daaru ma naan gi ma fekk ak xayra waaw euh, xam nga politique lu ko faral di waxee c'est l'art de gérer la cité te mënoo def politique mm-hmm. sama jàng-jàng te defoo développement mm-hmm. ndax jigéen ñi ak jeunes yi ak ku mu mënti doon am na noo koy gérer mm-hmm. ndax tamit nit ñu defatuñu nit ki da koy nekkal mu nekkal la dafa am loo xam da nga ciy yëngatu woo leen ci ñu fekk si la heure boo soxlaa leen boole booyu ñu ñëw mais nag doo toog fële rek à xaar ba politique jot a vingt jours wala un mois des élections nga woo leen man du ma du doxee noonu. waaw du ma doxee noonu. nooy doxee. nu may doxee. kañ ngay jóg. chaque jour chaque jour damay jóg chaque jour maa ngi ci ittee jigéen ñi chaque jour. Euh, defe naa boo leen toogee tuuti nga am ay xale association bu leen fekk léegi ndax jox naa leen rendez-vous tey jii mm-hmm. man noonu laay doxee. Mm-hmm. dama nit ki da nga leen di amal njariñ. ñu ah, amal njariñ tamit c'est heure liggéey bu jotee nga dem politique yi. yooyu tamit du ngeen ci bàyyi xel mais mais man kenn mës a dox ci terrain heure politique fekk ma ci terrain bi ah, xalaatu ma ko sax eh, man ñëw naa sédaaf heure liggéey ah, fekk ma la fa de ma soxla woon la lool <laughs> ñu ne ma ah, daf Mbàkke dem la bi ah ma sédaaf maa fay njëkk maa fay mujj waaw liggéey naa te tey ñu ba dañ ko pont jour jour bi nii tey ji liggéey naa. maanaam férié ba suba comme tey yi nga. xëy tey dama mais tey du férié. waaw du férié mais comme yow mi liggéey nga tey. <laughs> laajal waa SEDA. Ah. laajal waa préfecture bi ma woowee naan ma téléphone da nga da nga am courrier man ma ASP dama koo woo. Hmm. ko dama jël li ma courrier bi indil ma. am na ay xale yu jigéen parfois yu naan euh, dañuy ragal a ñëw ci centre parce que euh, amuñu diplôme boo xam ne c'est reconnu par l'État loolu la ñuy tontu. non non non amul loolu SEDAF képp kuy jigéen à partir de 9 ans ba am nga 65 ans wala jëm kaw ci SEDAF bi nga bokk du question diplôme mooy tenir SEDAF. CEDAF ñu suñu loolu du loolu dañuy fexe ba jigéen bi autonom mun a demal boppam mi ki amul diplôme mën na pour ki am diplôme mën nga ko encadrer mais fii <laughs> jigéen ñi fi am ñëpp laa rek amuñu diplôme yi mais femme entrepreneur yi ñi commencé di jaay ay caaf ay beñe dañ leen di encadrer teg leen ci yoon wala leen projet yi dafa leen formation ñu la ñuy formé ci jigéen CEDAF kenn xamul nu mu toll mm-hmm. fii mm-hmm. ñu fi forme parce que am nañu am nañu partenariat ak 3FPT ñu formé ñu ay jigéen bi ñu pare ñu fexe ba dugal ci projet yi. Mhm. alors léegi euh, maanaam souvent yéen bala ñu leen dégg nag euh, ci maanaam coow li wala bala ñëw dégg gis ne par yéen a ngi bëgg naan ñi wax leen ah waa góor waa góor wala waa kumba mhm. ma ngi liggéey moom mooy soit ministre boo xam ne nii bu am doole comme ministre de la femme mi ngi fi waaj a ñëw wala soit président de la république mi ngi fi waaj a ku ci nekk taxaw wane sa bopp ne man laak yooyu. souvent dañ leen gis ci yooyu te ngeen ne yéen da ngeen a booloo te fii jàpp na ne yéen booloowu leen. man est-ce que da nga ma gis ci genre yooyu. ah dama lay gis kay. Ah, ci euh, arrivé président ak yooyu yëpp. waaw waaw su président su responsable politique la bu ñëw dañ fay dem. ministre de la république bu ñuy ñëw dañ fay dem. mais mais ñun tamit dañuy politique di mais ñun xaaruñu ba président di ñëw wala kii di ñëw ñuy liggéey wax naa la ko léegi ñun chaque jour man damay politique chaque jour heure creuse bu ma am dama koy politique. ak li ngeen fi def yëpp. duñ fi def lu mel li ngeen liggéey ak li ngeen maanaam li ngeen di politiquer jour yéen a ngi xëy chaque jour yéen a ngi yëg ci askan wi di waxtaan ak ñoom hmm. di dox doxinu politique teewul maanaam bu ngeen dikkee rek fii rek ngeen jàll ca côté waaw lan moo waral xam nga seen liggéey des foofu xam nga jàll ci coté jàlluñu ci coté ndax élection ren présidentielle yi yéen ay journalistes ngeen fi ngeen dëkk xam ngeen li ñu daan am ak liñu ñu am xam nga am na progrès bu mag. madame Mbacke waxuma li daan am. non mais xam nga li mais xam nga gañe wuñu je sais que ne gañe wuñu. xam nga xam nga gañe bi. mais mais gañe wuñu. c'est ça le problème mun leen fexe ba gañe depuis 12 ans ngi nii leen fexe ba gañe Touba benn élection ban la. non xam nga gañe moom loolu dama koy nangu xam nga dama toog télévision naan dañoo gañe. te gañe wuñu loolu kon je serais même ridicule dama ko wax mais nag euh, mën nga nekk benn benn stade fii mais nga def progrès bu yàggee. <laughs> di nga kii. ah yéen kay progrès amatul yéen ngeen ah, jeexal seen ngeen ñoo jeexal xëy na président moo pare mandat. mais parti baa ngi fi. parti bi pa voilà parti boobu fi nekk nag. yéen parti baa ngi fi ngeen parti bi day continuer parti bu continué wu nu muy def. lan moo fi kan moo fi nekk. président taxawul barki démb bu na na euh, euh, jël euh, jigéen ñi dénk ko Ndeye Saly Diop Dieng. waaw jël jigéen go jeunes yi dénkaane waat ko. waaw kooku mu ngi structuré parti après. après ci région yi la dem ak département yi. léegi bu non bu loolu yëpp pare. Hmm. <laughs> waaye lii problème moom mooy kan moo leen di doy. mais loolu après dañ ko waxtaan suñu biir. loolu su nga foog ne liggéey du liggéey bu war a commencé léegi. mais ñu ngi ci. dañuy toog toog rajo du des kii suñu stratégie ñun. lay lay ah yaa ko wax de. waaw yaa ko wax yéen ñii moom ngeen di préparé tamit. troisième mandat. waaw ah loolu yaa ko wax. ma ne maa ngi ko soog a dégg ci yow. ah da nga koo ñëwutoo wax. <laughs> da ngaa ñëwut wax ne Macky Sall man nag aw ma lu ma ragal <laughs> ragalu ma dara de. Macky Sall mais man mais man yàlla dafa ma bindee su may su may wax Sidi. Mm-hmm. damay wax lu ma xam. Mm-hmm. wax lu ma wóor. Mm-hmm. mais du ma wax loo xam ni amu ci benn amu ci benn certitude bu ma wax may nak nakal loolu moom yàlla bindeewu ma ko. responsable politique yi nekk Touba jubóowul madame ma loolu moom xam nga ko. maanaam ànduñu kana kana kana ci jubóowu waxuñu xam nga bu ngeen tasee fii léegi mën ngeen a nuyonte tam mais bu dara jotee pour liggéey maanaam du ngeen ànd ànd bi nga xam ne moom la ñu soxla ba ngeen mën a gañe loolu d'accord ngeen ci ànd bi ñu soxla parce que ku nekk yaa ngi toog sa ruq maanaam di di woo sa presse ah di leen woo di waxtaan mais mais mais mais demal Dakar ah Dakar kay dina suudewu Dakar bu Amadou Ba jàllee ne dem politique yi Mbaye Ndiaye jàll ne dem politique yi mais toujours noonu la. mais xam nga politique. xaaral rek dana jaar nii politique mais comme léegi par exemple. bu def. mais ku dem bu bu bu élection jotee ku nekk li nga am nga ñu sotti ko président. Dakar amul leader. kan ma leader Dakar. Dakar am na Ablaye. kan ma leader Dakar bi. Ah, Dakar fi ne nii am na ku fa jiitu. mais wax ma leader Dakar bi. Marième Faye Sall moo fa <laughs> <laughs> <laughs> wala Faye Sall politique day jàppale borom këram mais politique. waaw kooku <laughs> mais ñëpp ngi bootu ci gannaaw. Amadou nga fa dem na Thiès. Amadou Ba ma nga fa. mais ma nga fa. li am fi mais Touba Touba fi mi tamit da nga diw mi ngi fi diw mi ngi fi noonu la rek. diw ku fi ku fi fi nekk bari nañu. yaa am yow yaa yaa ko wax léegi sa biir wax. Hmm. wër nga responsable yi. <laughs> presque si man nga mujjee di. non defal naa mais mais mais mais si li bu ma jommal yow bu ci nekk nag. nangu nanguta wax ne diw mi kat madame Mbacke kat doy nañu comme mu jiite euh, département mais xam nga loolu xam nga yéen bu leen ñu wax looloo xam ne àggaguñ ci. non parce que jot leen pour liggéey. mais du yéen yéen a koy yéen liggéey ñu ngi liggéey de ci bu wér nag. Ah, yéen yéen xam ñu ngi liggéey. seen liggéey moom des na ci côté boobu. xaaral élection yi jàll tax. waaw élection yi jàll ñun ñun xam war xam ngeen lu ñu daanee lan la. lan la yi xam nga bu fekkoon ne élection kese kese kese di di fi gagné. daa am lu ci rax ci biir. ah, ah, ah. man de wax dëgg yàlla xaw ma ko. li ah, rax ci biir yéen yéen politiciens yi nag yéen ko xam. ñun en tout cas ñun daal li ñu doon bëgg. non mais am na biir. loolu moom xam nga xam nga ñun li xaaral xam nga ñun li ñu bëgg. Mhm. li ñu bëggoon am na. mooy président am deuxième mandat. te président li tax mu am deuxième mandat tubaa joué na ci rôle bu mag ndax Touba bu fekkoon lam daan am la am président soo moytu tuddee dem deuxième tour. Mhm. loolu leer na mhm. ndax mënoo jóge 37 mille et quelques voix ba 69 mille et quelques voix li ñu am yan departement ñoo ko am au niveau national xool ko no mais mais kon nga xam ne ñun li ñu doon liggéey au moins doublé nañ ko xam nga loolu li ngay wax nii mooy lu ngeen lu lu ngeen tibb def defaat la yokk ci maanaam seen paan ba ngeen yoroon waaw mais dañu ne paan boobu noonu mu leen a fexe ba feesal ko mais bu yàggee mu fees xam nga paan bi yow yaa ko wax xam nga paan bi xam nga paan bi en 2019 bi dañ ko fekkoon mu digg xëy mu nekk ci ci digg bi. ngeen jël sotti ci pot. non non sottiwuñ ci pot de mu nekk ci kaar bi ñu doublé ko mu digg mais bu ñëwaatee dañ koy doublé waat bu ñëwaatee ci lan beneen présidentielle wala beneen élection. mais élection yi ngi ñëw local yaa ngi ñëw. local moom fii moom jarul local. Touba moom xam nga jarul local waxaale wuñ ko. mais au niveau départemental xam nga Touba local euh, local bi xëy na. ci mairie bi la am problème la xam ni du problème sax parce que dëkk boroom la moom mooy choisir ay nit mais au niveau départemental tamit élection la. élection yu élection dëggantaan la. kon loolu préparation conseil départemental. waaw ci bu wér. conseil bi dañu bëgg a jël te dañ koy jël. yow mii bokk nga ci ñi bëgg a laaj conseil. ah xam nga man li may faral di wax dama am discipline de parti. mais nag ñu yor conseil bi. benn responsable nee na ma. Hmm. dafa bëgg maanaam six personnes wala six responsables taxaw ku ci nekk ne man candidat laa. Hmm. te bokk benn parti ànd nga ci loolu nga xam ne maanaam moom mu lay proposé. xam nga man loolu man duma ko wax ndax xamuma ki nga wax ko mu doon mais man dama am discipline de parti. Mhm. xam nga parti moom moo ko doon ko bokk ak ay nit. fu mu jaar parti bi nii lii lañ décidé nga xool ba xam ñu jaar ci parce que nit ki tam mënoo nekk ci parti te li parti bi wax doo ko def parti bi ce qui est sûr ñun dañuy am ay candidats li ma leer ba leer mooy candidat conseil départemental liste bi moom fu ma jaar dama ciy bokk mënut a ñàkk. waaye ko jiite. non du question jiite loolu après la. xam nga xam nga bala ngaa jiite li. soo da a xaar ma expliqué si waratoo nangu léegi waratoo nangu léegi yow. non non non ne ci gannaaw kenn. parce que yow da ngaa am loo xam ne moom ngay pesé fii ci mais mais taxawal ma wax la. yow Touba fi taxawal kat mooy responsable madame Mbacke amul ma topp ma ci gannaaw kenn. Ah. président mooy sama leader. waaw nangul ko ñu sa gannaaw. xaar ma expliqué président mooy sama leader Ndeye Sall mooy sama présidente des femmes loolu la président def. fii mënoo taxaw ne diw mooy responsable madame Mbacke xam nga man weesu naa foofu mais tamit duma taxaw bokk ci parti bokk ci benn structure naan dama jiite ji liste bi il faut ñu toog waxtaan tamit waxtaan wax dëgg ca la wax naa la man du ma wax ëllëg ñaa madame Mbacke foo waxoon li wala moo fi defoon li du ma ko def xalaatuma ko sax itam je responsable mm. waaw am ndaw xam nga ñu bëri ñoo xam ne bu dañ naan peut man ragalu ma <laughs> moom xam ne man dama koy ragal <laughs> déedéet ah, mais mais ah yaa ngi euh, discipline de parti laa la wax mais man ragalu man tam ragalu ma eh, yow tam eh, eh. su ma ragaloon su ma ragal xam nga man parti bi yàgguma ci est xam nga ne parti APR yàgguma ci bala ngeen am discipline de parti mooy parti bi day am structure bu dama lay wax est xam nga ne man APR yàgguma fi man 2014 laa ñëw ci parti bi 2014 ba 2019 5 ans. Oh, waaw ah, am na ñu ma fi jiitu. waaw te mënoo tudd juróomi ñu ci parti tuddoo ma. jamono ji waaw. Ah. waaw. moo li ma la wax nag fi ne da ngaa bokk ci ñi nga ah, taxaw. moo tax nga xam ne man moo tax mais nag li may wax dama koy xam. dama koy xam dama am discipline de parti te suñ parti toog waxtaan waxtaana guñu bis bu ñu waxtaanee. nañ seet ba xam luñ tëral naa ci naa nangu parce que tamit luñ teg rek ma nangu ko da ngay toog fii naan waxtaanagul waxtaanagul waxtaanagul ba élection ñëw ah am problème u nag déedéet déedéet déedéet du demee noonu de du demee noonu wala yéen def ay liggéey souterrain en tout cas bu jotee di ngeen ci xam dara non <laughs> bu jotee daal di ngeen ci xam dara moom liggéey souterrain ngeen di def souterrain ah politique kenn mu ko def souterrain uh-huh. déedéet am nga stratégie nag hmm. mais xam nga ñun duñ def liggéey souterrain. alors euh, jigéen ñi dëgg dëgg dëgg seen taxawaay ci dëkk bi nga xam ne maanaam ku ci nekk yaa ngi yëkkati say GIE say mouvement te maanaam gis na ne maanaam euh, développement bi tax ñiy wax bopp ñenn boo duggee ci sancaan yi da ngay am problème foofu noonu da nga naan wala boog jigéen ñi wër di ñëw di liggéey si fii yéen GIE yooyu noonu est-ce que yaakaar ngeen mi ngi avancé par rapport projet yi fii dugg yi ñu bëri financement yi day dugg. ni mu war a duggee te dañ leen di dooleel bu baax a baax. xam nga GIE ni ko nit ñi waxee xam nga wut kayit dafa yomb dafa am ñoo xam ne naa am naa groupement de femmes ni am naa jiite naa 2000 personnes gisee naa 100 personnes te boo leen woon tey yi dem seen kër mënuñu dajale sax fukki nit yu mat xam nga loolu kayit dafa yomb mais dajale mbooloo mbooloo du tey benn bis nga koy dajale mooy li ma la wax sànq da ngay liggéey ak ñoom ba heure fi mu nekk nii boo taxawoon tey. ne bu subaa damaa soxla tant de femmes ñu ñëw fekk si la loolu looy liggéey la lu yàgg lu liggéeyu benn fan lu liggéey ñaari fan et puis ay jigéen tamit doo leen jiite boole leen ba pare gisuñu gisuñu njariñ gisuñu njariñ boo demoon jéggi tali tey jii di fa fekk euh, Soxna Jaw mi ngi ci ganaar dañ leen a dajale leen wutal leen seen groupement seen lépp ñu dem nga jaar nii gis ku ñuy wax Maguette Ndiaye mi ngi ci kër gi fii jigéen ñi ngi ci soxna Kobar ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi sa groupement. te groupement yi oo mooy bootu sa gannaaw waaw mooy bootu sama gannaaw te man sama diggante diggante xayra ak tu daal maanaam laa lay wax nga dem ba ci jéggi tali bi waa ko sëñ Modou Mbacke yi yëpp ñu ngi foofu ñoom bu dem ci ñoom soxna Baali ñu ngi foofu nga dem ba aynu xam nga dafa am loo xam ne du du du looy wax te def politique bi ma su ma sañ dañuy def politique autrement mhm. beneen façon politique mais da dajale di tàccu man yooyu bugguma ko xaw ma ko sax man sama papa nekk na maire pendant douze ans à Mekke man dama ciy judd dama ci yaru dama ci yeex dugg nag ndax dama yeex am ndigal mais man xam naa nu ñu moo tax nga war a euh, nekk euh, euh, <laughs> ah, mën naa nekk nag. <laughs> Hmm, bëgg mais mais mais dama lay wax mais mais mais kuy kuy politique amoo ambition kan la. man conseil départemental sax dama ko xeeb. barke borom daaru mus dama ko xet parce que man damay politique nag booy politique da nga bëgg daal il faut tamit booy politique il faut nga oser. il faut nga oser. danaa la yàgguma ci AP APR de. waaye fi mu ne nii juróom bu bu bu wax juróomi. ah bu dem boole ma ci de. waaw. Ah. waaw mbokk yi seetaan découverte madame Mbacke Mariama Ndiaye moom la ñu dalaloon ci seen émission 28 pro euh, bi nga seen émission découverte euh, ak 28 pro euh, mais nag fi ñuy jeexalee moom mooy que ni femme de ménage yi nga xam ne yaa ngi koy gis jamono ji koo ci wax mu ne maa ngi toog ci kër gi euh, jigéen ni muy yaree léegi comportement yi doy na waar soxna si yarin bi dafa dafa dem ba maanaam ñu ñuy orienté te ku ci nekk maanaam ñett nii rek bu ñu seqoon kër kër mën muy baay ji ndey ji doom ji ci doxalin bu aw yoon yow euh, boo gisee lu ni mel wala boo en tant que euh, chef de famille boo xam ne da ngay xaar ndigal jub nga soog a mën a jëfee loolu est-ce que loolu yoon la. xam nga yar moo amatul yar ci boppam moo jeex mais nag ba léegi li fi am nañu yaru ba tey te responsabilité mi def dafa partagé wu parce que xam nga boo gisee kër yi daanaka góor ñi toogatuñ fi surtout boo gisee suñu dëkk bi rek euh, góor ñi dem nañu wuti parce que fonctionnaire yi bariwuñu jigéen ñoo de si kër gi jigéen ñi bu ñu xëyee ñu dem marché di jaaye seen doom yi kuñ koy bàyyeel yenn saa yi nga yóbbu ca daare alxuraan ja yenn saa yi nga yóbbu ca araab ba yenn saa yi nga yóbbu kër na wala sa mbokk dëkkandoo xam nga loolu dafay joué ci xale xale du bëri ay kër yu muy nekk te bu njëkk kër yi ñun suñu kër sa mbàpp dafay toog sa yaay toog sa maam toog ku nekk am mainmise ci xale bi di jubbanti même dëkkandoo bi bu mu saana gis doomu dëkkandoom def noonu dina am sañ-sañ ñu jubbanti mais fi mu nekk kenn sañtu laal doomu kenn même jàngalekat yi sax sañ ñoo laal jubbanti kenn loolu mooy problème bi médias yi joué ci internet bi joué ci ah man jigéen laa mais dafa am loo xam tamit ànduma ci ànduma ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay parité loolu lu ma contre la dama koy wax ci kaw en tant que jigéen en ko contre parce que bu fekkee ne xam nga tamit parité yi doxal ay parité e, e, électif yu kenn xamul ma yooyu mm-hmm. mais xam nga naan góor de takk sër ñaar loxo takk sër loxo takk kii yooyu bi mu ñëwee ba léegi la dañ ko wax te dee bi ba léegi la askan bi yàqu jigéen mënut a fexe ba yem ak góor mm-hmm. mun ta nekk mm-hmm. gusoo jigéen bi jiite mën nañu nag condition jigéen amélioré ko comme rôle SEDAF jigéen ñi daan bojjee a soqee ñu fexe ba condition yu wàññi fexe ba dugal xale yu jigéen yi école ñu jàng mais tamit bañ égalité bi xam nga égalité na góor jigéen loolu moom d'accord ma ko tant ñu ko def ci bopp xale yi day jaxasoo nañu fexe ne ba condition jigéen changé na jigéen ñi dem jàngi école fexe ba am liggéey xam rolu jigéen te du yàq dara ci sa ménage li la rôle war en tant que épouse nga def ko en tant que mair nga def ko mais nag soo seetloo naan na nga toppandoo tubaab yi ah damay liggéey sama jëkkër day liggéey su ma jëkkee ci kër gi na nax xale yi na na tànn ceeb bi na tàngal ndékki li no loolu laaj moom je suis contre jigéen yeewul fajar xool sa boroom kër li mu war a def nga defal ko ko jouer pleinement sa rôle épouse sa rôle mère nga jouer ko pleinement mais mënoo sa doom di jàngi nga mujj ko ci lal bi yee ko di ko demal sëlmu ji demal jàngi déedéet loolu moo tax yu bëri amut tey na nag li naan nag liggéeyu ndey añub doom gars yi di ko caaxaane dafa am te barke bàyyi koy joxe il faut nag ñu ñu jàmm suñu borom kër yi xam ñooy ñan loolu moom vraiment man euh, yooyu laa gëm waaw euh, jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte bu baax ñu ngi dalaloon nag ki nga xam ne moom mooy Euh, Mariama Diaye madame Mbacké directrice SEDAF bu Mbacké euh, nekkoon suñu gan ci seen émission découverte après tabaski gis ngeen ko nii rek lañ ko fekkee ci këram mu dalal ñu am mbégte lool di jégal tamit ci dérangement bi euh, waxtu yi ay ñu bëri ñu yaa ngi fooroon waaye jàngatu noo li jàngate liggéey waa 28 Pro ñoom ñu la seet si tey. li ma njëkk a impressionné daal mooy seen matériel bi man xam naa leen yéen ñi kenn ku nekk xam naa leen mais xaw ma woon yéen a nekk fii. Mm-hmm. dinaa leen di gis nag ngeen ay xale yu yaru nag ma leen di ñaanal ni li ngeen mën ren bu déwee ngeen mën lu ko ëpp gisoo maa leen tooy naa ne ngeen ba xaw xam benn kii boo xawoon rool nii parce que seen affaire vraiment macha allah je touche du bois mais nag mënoo maa defal émission ba pare te duma dimbali ñaar gërëm ñaar ku njëkk mi sama borom kër gannaaw ba ma sante euh, samay waajur ba pare sama borom ko sëñ ab Samad ibnu sëñ mu Modou Awa Ball maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax ndax nag lu ma mën mooma mais nag le président Macky Sall xamoon ah mais mënut a ñàkk waaw yéen kay mais mënut a ñàkk président Macky Sall mi ngi liggéey mi ngi mi ngi def lu mu mën lu mu mënul mi ngi teg plan Sénégal plan émergent ñun ñun ñun ñun ñun lii ñu gis nii ci jigéen ñi ak ni ma bëggee woon euh, développement jigéen ci ay Macky Sall laa ko laa ko gisee Macky Sall man ma dem APR kenn yóbbu ma man réew mi laa nekkoon man maa gis liggéey ma jógee APR euh, réew mi dem APR gis li ma liggéey jigéen ma sawar ko ànd ak moom di ko liggéey lool nag waaw ak ak ak ak ministre mi yëpp nag maa ngi leen di gërëm di leen sant kenn ku nekk li nga mën ci ñi ma xam ñu ngi ma ci jàppale bu wér jërëjëf am nañu mbégte bu baax mbokk yi mu nekkoon ci présentation bi si Sidi Diakhaté caméra Talla Samb Bekay Ndiaye Serigne Mbacke Fall ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen dig daje ci yeneen jotaay ci 28 pro jërë ngeen jëf.